dal di am ay nit yu ñëw ci moom ne ko Aboubacar xoolal sa doom ji li mu defati rek Aïcha sa doom ji fexe na ba toogloo fi yonent bi toogloo fi ñëppati toogloo na yonent bi toogloo na ñëpp ñëpp fanaan fii ndax takkaayam gu réer amuñu ndox mu ñu àndaloon ñëw te barab bi amul ndox itam e bi ñu waxee loolu Aboubacar Aboubacar itam dal di am lu ko naqari lool ci doomam bi nit ñi ñëpp di ŋàññi ndax moo téye yonent bi ba ñëpp fanaan àll ci nii mu dal di ñëw ci doom ji Aïcha fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jël boppam teg ko ci kaw lupp Aïcha di nelaw Aboubacar ñëw ne Aïcha téyeti nga nit ñi fii ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barab boo xam ne kenn amul ndox te ànduñoo ndox barab bi amul ndox ànduñoo ndox di yedd lool doom ji ndax moom rek a sañ a yedd doom doom ji mooy jabaru yonent waaye nag mooy mooy doomam bàyyi sañ naa yedd doomam yonent baa ngi nelaw ci kaw luppam ñëw na di ko yedd ndax nit ñi wax ba wax ja bari mu gëlëmal ko lool ndax mu ñëw di yedd doomam mu ne mu wax ma lu soob yàlla ci ay xaste mu wax ma rek di ma wax di ma xas ba mujj sax di ma xat di ma rëkk waaye mu ne ma bañ a yëngatu ci rëkk yaag dóor yëpp may dóor ndax yonent a ngi nelaw ci sama kaw te bëggumaa yëngatu mu yeewu xam naa Aboubacar it booba di dóor yooyu woyof na lool ak wax ji yoot yoot yoot la ndax ku xam yonent bi xam Aboubacar ni mel ci moom fu muy nelawee du bëgg a ñëw mukk di ko yee kon wax ji xam naa ne wax ju suufe la woon dóor yi dóor yu woyof la won ko rek ne ko daal li nga def daal neexul kenn ba ñëpp a ngi ñëw di wax lu tax nga def ko yonent daal di nelaw ba yeewu ba mu kayee mu jog amuñu ndox te julli jot na foofa la aaya bi wàccee yàlla di xam le ne lu mel nii bu leen dalee tiim leen dal aayab tiim fa la wàccee qaala usayibdul usayibnul xodayri wa huwa ahadu nuqabaai maa hiya bi awali barakatikum ya ala abi bakrin ku ñuy wax xodayri usayd ibnu xudayri kenn la woon ci nuqaba yi ci tànneefu saxaaba yi ñoom ñi nga xam ne yonente sallallahu alayhi wa sallam defoon na leen ñu nekk njiit ci seen mbooloo ci guddig laylata aqaba kenn la ci ñi nga xam ne yonente boole woon na leen ca njiit ya ñoom ñooñu la ñuy wax nuqaba lam wax mooy lii de du seen njëlbeenu barke bu feeñ nekkal ñu yéen waa Aboubacar yéen waa kër Aboubacar fa qalat aïshatu fa baasna albaira alladi kuntu alayhi fa wajadna aliqda taxtahu ba loola amee lam wax mooy yow daal aïcha lii daal du lu njëkk a feeñ ci barke boo xam ne jógee na ci yow wala sa kër baay ndax daal gis nañ ne yow jafe-jafe bu la ñëwalee rek xeet bi yëpp a ci xetale ko jàngoon ngeen ci weeru koor ba ñuy firi suuratu Nuur xibaaru sayyidatu Aïcha ak yiw ya yàlla wax yépp ne nekkal na jullit ñi ci xibaar booba te itam téewaat na nit ñi ñu fanaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëy war a julli ndox amul aaya bu ñëw tegtale ne mën nañoo tiim ñëw bu Aïcha defuloon loolu fu aaya bi ñëwee kon nag mu tontu ko ne ko yow daal fu la jafe-jafe mosee ñëwal rek jàppandal la ci xeetu yonent bi yépp kon daal lii du njëlbeenu barke bu feeñ ci yow naka jekk rek barke de feeñee ci yow kon ngeen gis ne bari na ay jafe-jafe dafa mel ni jafe-jafe la waaye jàppandal la bari na kuñ topp ak ay coow di la wax wax yoo xam ne di la ŋàññi fekk ŋàññaay googa xaste yooya daf lay yëkkati da yëkkati wala ñu bari sax ci yow kon fexeel baax biir rek lu feeñ lay feeñ ci yow lu mel ni lu ñu ŋàññi ñëpp di la ŋàññi duut lu la suufee lu lay yëkkati la ni or bi waa ji moom bëgg ko lool dugal ko ci safara lakk ba mu xonq cëy jël martu di dóor tekkiwul dafa bañ or ba daf ko bëgg ndax bëgg na bu jógee ca loola rek jot yore caaru or ba or war a yore kon du ñëpp ñoo mën a muñ nag wax yu nu mel caalit mën na faa jógee mel melokaan bu dul noona sax ba amee ci merum yàlla mun na caa jógee waaye ku muñ sellal sag muñin rek di nga yëg lu la muñ loo lu la bégloo kon naa échec ku daan muñ ñëw moom la ko sahaabi bi di wax ne ko wa huwa maa hiya bi awali barakatikum ya ala abi bakrin فقال عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته بن جوغي رك نك جلم جي دالدي جوك فك ندك تكا ريرون جلم جي تدون ci kum kon yàlla na moon rek loolu nëbb nag takkaaya ca fa gëlëm nga tëdd wa anha annaha istaarat min asmaa qilaadatan fa halakat فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم بتي بنين رواية يانجي داي دغال رك ne lépp ci Aïcha la jóge ba takkaay googa réeree ñu ne dem na ab ku ñu wax asma xilaada tam te xilaada ba tey mooy xeq du rek mooy takkaay yooyu ñuy wax takkaay yooye nag mu réer benn wax la mooy takkaay gëlémam yooya ndax moo ko moomoon wala daf koo abboon hadis bi day xam le ne daf koo abboon ci ku ñuy wax asma ba mu réeree nag yónente bëggul nag luñ àbb li réer mu yónni nag ay nit ñu koy dem di seeti seet googaa tax ñu fanaan ci barab ba fa leen julli foofa nag leen julli fekk ñu war a julli te amuñu ndox ci lañ tiimee ndax ci la aaya ba ñëwee xam ne ne tiim mën naa nekk benn wax la قال أسيد ابن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا رواهما الخمسة إلى الترمذي sahaaba yi bii ñu waxoon nag ne bokk na ci kenn ci nuqabaa yi di ibnu di usaydu ibnu xodayrin dal di ñaanal aïsa ne ko jazakillahu xayran yal na yàlla fay la yiw yow aïsa fa wallahi maa ngi wàcc yàlla ne ma nazala biki amrun dara mu mosul wàcc ci yow takrahinahu muy loo xam ne loo bañ la illaa jaala allahu laki lu dul yàlla defal na la ca walil muslimin defal ci mboolem jullit ñi fii ca loola xëyran jàmm ju bare bare lu la mosa dal lu la naqare rek yàlla defal na la ci jàmm defal ko ci jullit ñëpp jazakallahu xayran yal na yàlla fay la yiw kon ku muñ bari na xéwal yu koy ñëwal ba ñëwal ñeneen ña nga xam ne ñoo àndoog moom ci muñ ba الفصل الثاني في أسبابه والمسح على الجبيرة بلين بن تنجي واخ باتاي لب سي تيم اك ني تيمé كون لي نجاك جانغ موي لو ورال تيم deg ngeen ne tiim ci lii la jógee naka la ñuy tiimee nag li def ci bunt bi de loolu lay wax عن عمران بن حسين القصعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالسعيد فإنه يكفيك رواه البخاري والنسائي عمران ابن حسين ñu koy dàkkantalee ci giir gu ñuy wax xusaay yi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis benn góor benn waay bu beddeeku nit ñi julli moom julliwul ndoor ak nit ñi mu ne ko waaw yow diw lu la teree julleeg nit ñi mu ne yow yonent bi yàlla bi man kat damaa amee jànnaa ba te aw ma ndox mu ma sangoo moo tax yonent ne ko li la war mooy tiimal boo tiimee rek tiim bi doy na la kon ngeen déggee ci ne ku am jànnaa ba julli jot ta sangoogul ñàkk sangum nga bu mu teene julli ndem ñàkk ndox a ko teree sangu na tiim julli warul jàpp de ndax bu doon war a jàpp am na ndox kon am na wérug mën a laal ndox it kon na sangu ji amul ndox wala amul wérug mën a laal ndox kon na tiim julli ndax bañ a bàyyi waxtu yi mu jàll fekk jànnaa ba rek moo ko teree julli ci waxtu yonent ne ko boo tiimee doy na la walis ngay sangu عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب وضوء المسلم أبي ذر جلنا في يونت بي يونت وحنا فك بلاب نجفل جلد له فك بلاب bu ñu waxee pàkk bu laab nag tiim munuñ ko def ci ay basanga ci ay yére ki miir bu mel ni bii nga xam ne dañ ko peinture déedéet kuy tiim yaa ngi tiim ci xeer woo xam ne dugaluñ ci liggéeyub ay usine ki dugal ci ay lu mel ni karoot yi déedéet munul xeer wi nga xam ne moo suuf si benn la ak xeer war lu mën a mel xeeru géej la bu ñuul la mbaa bu xonq la mën nañ caa tiim suuf la ak suuf sa ban la wala suuf soo xam ne sa lañ laag bu mu ca mën a doon rek baax na mën nañ caatim bu ñu waxee saïd daal mooy barab bu laab di suuf wala lu fekk lu bokk ak suuf buñ ca lalee basang mulul ci ndax basang bala bu nekkee it barab boo xam ne ñax ma daf caa bari lool mënoo tiim ca kaw ñax ma fàkkal ba jot lay suuf sa dog caa mën a tiim yonent nee na pàkk bu laab daal buñ mënee tiim njàppal julit la wa in lam yajid al maa ashra sinina fa ida wajada al maa fal yumissahu basaratahu fa inna dalika xayrun rawahu ashabu sunan feeg amul ndox daal donte mën na fukki at sax amul ndox sax maanaam day bari lu wane ne feeg amul ndox rek daal li ko war mooy tiim waxtu mu amee ndox nag na jël ndox ma jàpp wala sangu nam ko waree عن عمرو بن عاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات سلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاحتفال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا رواه أبو داود وبخاري كي عمرو بن عاص لا تود من دما جنت ci guddi gu sedd guddi goo xam ne ci xeex xeexul l'islam yi naan xeex bu ñu wax xeexub saata salaasil damaa gént gént góor tëddëg jigéen ba lay génnee ca góor génn ca xam nga ku tëdd gént tëddëg jigéen donte yëg na ne sàkkaraam dugg na ca payum jigéen ma te mën yu génnul ca ngay waru ko waaye jamono bu yëgee ne dara génn na ci moom rek ca ngay war na ko góor ga mbaa jigéen ja kum ci doon bu géntee ba yëg ne am na lu génn rek ca ngay war na ko mu ne damaa gént ci guddi gu sedd lool ca ngay war ma ma ragal a sangu fa asfaqtu ma ragal an aftasila ci ma sangu ndax fa ahlika kon damay daldi alaku ci ca ngay la sedd bi métti na munu maa sangu fa tayamamtu ma tiim su ma salaytu ma julli ca laa tiimee julli jiite sama mbooloo ñu daldi nettali loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko waaw Omar ah yow da ngaa julli jiite sa mbooloo fekk yaa ngi am jànnaaba lu tax loolu ma ne ko li ma tere ba sanguwuma lii la nettalil ko ragal ba mu ragal ndox mu sedd ma te mu ne ko damaa dégg yàlla wax ni wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp inna laa kaana bikum rahiman yàlla ku leen yërëm la ma ragal a laal ndox mi léegi dee ci te yàlla wax ne bu ñu rey seen bopp ndax moom ku bëri yërmande la ci ñun lii de mu ma tax a tiim mu ne yónent dal di ree waxu ko dara ree rek bàyyi ko ngeen déggee ci kon ne ku war a sangu te mënul sangu ndax ragal ndox mu sedd ma lool ndax bu sangoo léegi tey mu juri jural ko ca feebar boo xam ne mën na ca àlla ko mën naa tiim ndax bu mënuloo nekk rek yónent wax ko ne ko na dem sangu ji عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فسج فسجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر, تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرعه خرقة ثم يمسى عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود كي جابر لتدو mu ne génn nañ di tukki benn kenn ci ñun benn góor ci ñun am benn toj-toj bu dal bu nekk ci boppam maanaam bopp ba dafa toj xeera ca dal mu toj ñu band ko ci guddi ga mu gént ci guddi ga wala ci bëccëg ba gént daal ñëwal ko ba mën ñu génn ci moom ca ngay war ko mu laaj ñi mu àndool ne leen waaw ndax amalul leen ma benn tegtal benn lay bu ma mën a sukkandikoo ba bañ a sangu ndax ma tiim rek ndax amalu leen ma benn xam-xam bu ngeen ma mën a jox daal boo xam ne dina ma mën a may ma tiim ñu ne ko déedéet amuñ benn jàppandal bu ñu la mën a jàppandalal daal luy tee nga mën a sangu déedéet mën ngaa laal ndox mi daal laalal ndox mi sangul ah mu bëgg a rafetal diinaam ba tax mu sangu ba mu sangoo dal di dee ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettalil ko xibaar bi mu ne rey nañ ko de ñi ko rey yal na leen yàlla rey maanaam ngan ñi la rek wan leen na leen li ngeen def baaxul jubluwul ñaanal leen ñaan gu leen di alak waaye wan leen na rek ñàkk xam dañu ñàkk xam daal dëgg-dëgg ñi ñoo bon yal na yàlla rey leen waxin la waaw lu teewoon ñu laaj bañ xamulee ku xam ndax fa innama shifaa'ul ayyi as-su'aalu li nga xam ne mooy saafara ak réer ak ñàkk xam mooy laaj fa innama shifaa'ul ayyi lii saafaray réer asu alu mooy laaj ku laaj rek xam teewoon ñu laaj doyoon na ko rek mu tiim bu tiimoon doy na mënul sotti ndox ci boppam bi mu bañ a sotti ndox ci boppam bi na sangu la mën a am ndox mu laalale ca ndox la nga xam ne moo nekk luñ bandi ndax mënu caa laal ndox mu raay ca loxoom rek mu jeex lii la yonent bi àtte kon ngeen gis ne ku am benn dagg-dagg fu mu mën a doon ci sa yaram boo ca laalee ndox mu lukk wala mu gaañ la digaluñ la nga laal ca ndox sangul la mën a laal ndox laal ca ndox loola nga raay ca sa loxo rek mu jàll moo xam ca loxo bala moo xam ca bopp bala raay ca ndox rek mel na ni sanga sangu nga ca ngay lu mat lii la yonent jàngale sallallahu alayhi wa sallam bunt bi des na tuuti ñu dugg ci buntab julli nag kon nag buntab laab jigéen attey laabam buntab tiim buntab julli lu mu ca doon yàgg nañoo gis lool ne nii la nii la nii la ba mel na ni ñëpp mën nañ ko waaye ay sew sewa nga ca ñëpp mënuñ ko de kon buñ tëb benn bunt nañ jàng lépp yal nañu yàlla xamal ñu yàlla may ak dégg képp ku xam rek yaa ngi ci lu yomb yaa ngi ci jàppandal ku xamul nag mu ngi ci lu diis mu ngi ci jafe-jafe te mën naa alagoo sax ci ñàkk xamam ga kon nag yéen nee na saafaray réer mooy laaj ku xamul na nga laaj ñu xam jotaay bii ñuy def de xanaa xeetu laaj la xeetu mucc ci alaku la kon jàngulu yàlla gërëm la gis ngeen bari nañu toog ci seen kurus di wirde wirde rek baax na lool waaye jàng ak jàngale moo gën a rëy téye kurus di wirde ki toll ci war a jàng na jàng bu amee kuy fanaan ci kurusam mu téye téeram di jàng ngir bëgg a xam a xamle la mu nekk moo gën a rëy fanaanee julleeg fanaanee téye kurus kon nag bu amee ñu dem di jaamu ji yàlla ci yeneen barab am ñu dem ci yeneen mbir jotaay yii ngeen def dara gënu ko rëy yéen a ngi xam te da ngeen xam le ji kon yéen a ngi sawe yéen a ngi sawe le ji ay nit yoo xam ne ñu juddoogul ñu sax lu gën a rëy lii ci xeetu jaamu yàlla bu leen di sàggane njàng mi kon nag yittewoo leen xam ko te bëgguma mu nekk xam-xam boo xam ne itam ci téere bi rek la nekk buñ tegee téere ba ngeen fàtte ko moo tax ma bëgg ngeen di ci dellu siwaat ba jotaay bii di ñëw àllarba damay tëj téere ba fële di leen laaj na kenn ku nekk li jot a romb lépp lan la te ku ma laaj bëgg naa nga tontu fagaru leen ko léegi ku ci am téere bi demal jàngiwaat ko ku am ku ko mën a jàng demal mu fàttali la ku ko amul kaset yaa ngi demal déglu ko buñ dajee waatee daal beneen dajee boobu laaj lay doon ak tontu. kon nag liñ jàng bari na de te dinañ laaj lépp ñoo ngi yegg ci ñetti téeméeri laaj ñetti téeméeri hadis ak juróom-benn fukk biñ tàmbaleeg léegi ñu ngi ciy yegg. ñetti téeméeri hadis ak juróom benn fukki hadis liñ jàngagum man na ko tari loowuma leen lépp nag waaye ku ma ci taril juróomi juróomi xadis rek jàmbar la maa ngi xaar nag wala fanweeri xadis sax yaakaar naa war na mën a nekk kon daal fa juróom ba fanweer lu ma ci waaye taril baax na ci yaxu arab bi wa illaa benn sax ku ma ci taril baax na waaye nag bëggumaa gis ku ñàkk tari dara la ngeen may taril nag ca maanaa yee ca waxi wolof moom bëgg naa moom lépp ngeen mokkal ko ku ma ci laaj rek wala yéen a génneel seen bopp laaj yëpp kuñ ci laaj rek tontul ngeen fagarul loolu àllarba ji ñëw buñ ca tontoo lépp mu jeex baax na wa ilaa beneen àllarba it loolu la kon daal jamono bii ñu nekk jamono bu laaj la tontu delluwaat leen ci lañ jàngoon jéem ko xam bu baax ndax ngeen nekk di ay nit ñu am xam-xam te bañ a yelu ay téere rek yal na yàlla xamal leen barke seen xam ñu yàlla gërëmal ñu lépp luy suñu yëngoog suñuy dal te may ñu mbootam jàngaleeg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba luñ jëfee muy njub suñu yëngu suñu dal di njub te lépp gërëm loo yàlla subhanahu wa taala bi jaayi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam hurmati mawlana cheikh abdallah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة رضي الله والفاتحة سبقنا سلاق الأقوى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المثال العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث في كيفية السهارة ñoo ngi woon ci buntab saxaara li ci des lu tuuti la moom la ñuy mottali doga ñëw ci laaj yi ak tont yi قال الله تعالى فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يلا جانغلي نكا لا نيو تيمي ت الاربا جي جال وخون نين نكا لا تيم wàccee woon ci xew-xew booba Aïcha jiite woon aaya booba bokkoon na ca lii yàlla ne fa tayamamoo na ngeen tiim saidan ci pàkk boo xam ne tayiban bu làpp lay doon suuf daal lépp la feeñ ca moom rek loola said la moo xam loola doj la moo xam sallañ la moo xam dàkk la moo xam xeetu suuf bu mën a doon donte dafa sax xorom sax ndem mooy suuf sa rek mën nañ ci jàpp lañ bañ daal ku ca tiim mooy lu mel ni basang lu mel ni ñax mu sax nga tiim ca kaw ñax ma lu mel ni loo xam ne donte suuf la jaarale nañ ko ci ay industrie ba nga xam ne laso la mujj doon wala ciment la mujj doon wala wala karo la mujj doon yu lu mel mënul tiim kon ci suuf la ñuy tiim moo xam suuf su toog la ci lalu ci kaw suuf wala boog ab tabax la boo xam ne suuf rek lañ ko tabaxee amul peinture yi ba tey it nit mën na caa tiim wala xeeru géej la wala xeer bu mu mën a doon la ci xeetu xeer yi nga xam ne rek jaaru ci industrie yi ni ma ko waxee mën naa tiim kon loolu yëpp day dugg ci saidan tayiban bii alquran di wax bu ngeen cay tiim nag comme sahu bi wujuhikum na ngeen cay raay seen kanam na ngeen ca fomp seen kanam wa ay diikum ak seen loxo min bu ci tiimin booba naka la tiim jëlal sa ñaari loxo teg ci kaw suuf si ma wax ne mooy saay sayib ba yëg ne lii xonq ci sa kaw loxo tegu na ca loola ci suuf sa wala xeer la woo jël fexeel nga jël ko raay ko ci sa loxo ba yëg ni lii xonq loxo laalante naa xeer woowa bu nekkee loola la xëy na taxul dara bu nekkee da nga ko teg ci kaw suuf nag ba mu taq dara ñu ne na nga ko yëlëb ba yëg ni la ca waroon a jam ci sa kanam wadd na nga doog a raay nag sa kanam booy raay sa kanam itam raayal li nga xam ne moo tàmbalee ca sax saxu kawaru jë ba ñëw ci sikkim ba ñëw ca fa nopp saxee na nga fexe sa loxo laal yëpp ñaari loxo la dem borom ñaari loxo benn loxo la dem borom benn loxo la nga fexe daal lépp na raayu ak lii di xonq ci loxo bi kon melal ni kuy xaw a gëmmaale sa bët ndax ras-rasu bët yi itam loxo ba mën ko raayaale loola benn tegin la ci suuf maa ngi tudd sax naka la tiim waaye xam naa ne dàq bi balaa muy jeex dana ko tudd buñ ko jiitalee it buñ jeexee rek xam ne nii la nga tegaat beneen tegin ci sa ci kaw pàkk boobu wala ca doj woowa muy ñaareel nga teg sa loxo ndeyjoor ci sa ay baaraami loxo niki nii ma def baaraam sànqal lañu loxom ndeyjoor tegee ca sax saxu baaraam yi loxob càmmoñ nga teg ba nga baaraam sànneekaay tàlleeku ci kaw tàlleeku baaraam càmmoñ yi nii ca ci baaraam loxo ndeyjoor a nga ca sànneekaayu baaraam càmmoñ nga ñor di mu ñëw ñëw ba ci sa conco kon lii doon baaraam yi yépp jaar na ci kaw conc jaar na ci kaw nga wëlbati sa loxo nag xam nga seen xëli laa la guloon fenn teg ko ci kaw siraa bi ci biiram ñoddil mu ñëw ñëwal boo ñëwee ba mu yegg ci fi xonk-xonk loxo yi yemoon baaraam ndey bi rek moo laalagul dara nga teg ko ci kaw baaraam ndeyub loxo ndeyjoor ñoddi mu ñëw ci kawam kon loxo bi li doon konk ci baaraam ak ci kaw ténk ci càmmoñ yépp laal na nga ko ci loxob ndeyjoor jëleel noona itam loxob càmmoñ ba tegee ko noona ca kaw baaraam yi loxob ndeyjoor ñoddiwaat mu ñëw ni ma ko waxee woon wëlbatiwaat mu laalaat ba yëg siwaat fa nga tegoon baaraam ndeyjooru san baaraam ndeyu ndeyjoor tegeewaat ci baaraam ndeyu càmmoñ tiim ba mat na li mooy tiim tiim nag danañ jàng lan la tiim mooy njàppal ku amul ndox wala njàppal ku am ndox te am ngàntal mën a laal ndox ma yàlla lii la wax sadaqa allahu alazim jaa rajulun ila umar ibni alxataabi fa qaala إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر إذ كنا في سفر أنا وأنت و... فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعت فتمعت وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا فضرب بكفيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه رواه الخمسة حديث بي waaye dafa ñëw ci Omar ibn Khattab bu ñëw rajulu rek mooy waaye waaye ñëw na ci Omar ibn Khattab ne ko man de dama am jànnaaba te aw ma ndox Omar ibn Omar ibn Yaasir Omar ibn Yaasir wax Omar ibn Xattaab ne ko ah yaa ngi fàttaleku ba ñu nekkee ci tukki maag yow te yow julliwuloo woon ndax ñàkk mën a jàpp te man te sama aktu mooy ma xalangu woon ci kaw suuf ni daaba ni fas di demee ba mu yàgg muy xalangu ci kaw suuf ngir wakkutu yaramam wala moo xam di ngeen di gis léeg-léeg fas wala mbaam wala picc yi sax di ngeen gis léeg-léeg ñu dugg ci biir suuf si xalangu seen yaram yëpp laal suuf mu ne man ba ma loola dalee yow da ngaa julliwuloo jàpp ne amuloo ndox man nag damaa xalangu woon ci suuf ndax sama yaram yëpp laal suuf ba ma defee loola wasalay su ma julli woon loola laa doyloo woon julli wuutal suuf sa mu nekk ca ngaay ci man fa dakartu dalika li nabii sallallahu alayhi wa sallam biñ ñëwee ci yonent bi man ma fàttali yonent bi loo li ñu def maag yow fa qaala yonent bi tontu woon ñu ne innama kaana yakfika hakada yonent bi xamaloon ne innama kaana nekkoon na yakfika di la doy rek hakada lii mu bëgg a wax fa daraba mu teg moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko fay ci ñaari seen xam xalal ardi ci suuf wa nafaxa fihima mu yëlëb leen li ma waxee woon rek yonent teg ñaari loxoom ci kaw suuf yëlëb nag loxo ya bala ci taxoon ci bant bu ko tegee ci kanamam mu war ko jëm wala war ko fatt loola wàcc ci loxoom mu doog a masaa ni ma waxee woon suma masaxa bihima topp mu tegaat leen ñoom ñaar wajhahu fii nag tegul waxu sax ci ci suuf dafa ne rek suma masaxa bihima mu laalaat ñaari loxo ya wajhahu kanamam wa kafayhi ak ñaari tënkam noonu la waxee mu mel ni benn laalin la bu ñuy laal ci kaw suuf waaye nag xadisa ngi ñëw ci ñu xamal ne ñaari laalin la ci suuf ak ñaari masa kanam ak ci ay loxo xadis la boo xam ne juróom yëpp solo nañ ko bokk na ci laaj bi ma war a laaj ci léegi nag juróom ñooñu ñan lañu an abi juhaymi qala aqbala annabiyu sal allahu alayhi wa sallam min nahwi bi'ri jamalin fa laqiyahu rajulun فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام رواه الخمسة والشافعي ولفظه جلينا شكرا جحيمي من يونس بي صلى الله عليه وسلم نيوون بيس جوغي ci benn barab bu nekk ci wetu medinatu munawara ñu koy tuddee béeru jamalil fa la yonent ba jogee woon di ñëw fa laqiyahu rajulun beneen waay taseeg moom waay ji mooy kan mooy aboo juhay mi mii ju doon wax ci riwaaye bi nga xam ne moom la caafe yi solo moom aboo juhay mi moo tasee woon ak moom fa sallama alayhi moom aboo juhay mi dal di nuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam falam yarudda alayhi nabiyu yonent bi delloowul ko nuyu fay sallallahu alayhi wa sallam xatta aqbala ala aljidaari yonent bi tontuwul ko ba muy ñëwalee benn miir boo xam ne miir la bu ñu tabax ci Medina maanaam benn kër benn miir ci benn kër yonent bi fa masaha bi wajihi mu tiim mu jàpp mu teet loxoom ci miir ba masaa kanamam waye day yi masaa ci ñaari loxoom su ma radda alayhi salaam doga nag delloo nuyoo aboo joxe bi ko nuyu woon loolu luñ ci déggee xam nga waxul mu teg ñaari yoon loxoom ci tabax bi masaa ci boppam masaa ci loxoom benn tegin rek la tudd ñu ne kon nag li muy tegtale mooy benn tegin bi mën nga cee masaa sa kanam masaa ci sa ñaari loxo déggin boobu la ci bëgg a wax ba mu defee loola nag la doog a fay nuyoo bi nga déggee ci it ne dafa bëgg a wax ni asalaamu tur yàlla la ku amul njàpp warul mën a tudd tur yàlla ñu ne yonent bi bañ koo tontu dem tiim ba pare doog a mën a am ak laaj bu mu tontoo ñoom loolu lañ ca déggee loolu lañ ca déggee waaye ndax loolu noonu la dégginub saxaaba yi la ñu indi xadis bi ndax yéen buñ leen nuyoo te fekk ngeen nekk ci melokaanu war a yore jànnaaba wala daal jàppuloo moo tax doo fay nuyoo wala wala naka mën nga fay nuyoo wala duhu danañ ci ñëw wala duhu shafii waxam ja dafa wax ne fa masaxa wajahu wa ziraayhi masaa na ca xar kanamam ak ñaari loxoom wali abi wali abi daawuda an ibni omara abi daawud moom jëlee nañ ci moom mu jëlee ci ibnu omar lu mu wax mooy fa taraba bi yaddayi ala alxaaiti yonent bi teg na ñaari loxoom ci kaw tabax ba wa masaha bihima wajhahu mu masaa ca xar kanamam summa daraba darbatan uxra mu tegaat beneen tegin ñaari loxoom ca kaw tabax ba fa masaha ziraayhi mu dog a mataa nag ñaari ay loxoom suma radda ala rajuli assalaama mu dog a delloo nag nuyoo aboo juhay bi ma ko nuyu woon wa qaala innahu lam yamnani an arudda alayka salaama illa anni lam akun ala tuhril yonent daal di xamal aboo juhay mi ne ko lam yamnani dara terewuma an arudda alayka salaama ci ma delloo la nuyoo illa anni lu dul ne man rek lam akun ala tuhrin dama nekkuloon cig laat moo tax mënuma woon a tudd tur yàlla wi di la ko delloo loolu la wax waaye li wér mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam le na ne nit ki fu mu toll rek war nañ tudd yàlla ci biiram muy xol ba wala ci làmmiñam tur yàlla amul benn barab buñ koy bañ a def ndare tur ya nga xam ne dafa am ay jagle yu ñu ko mënul tuddee ci lu dul njàpp wala lu dul cangaayu jànnaba lu dul loolu rek tur yàlla fu nekk lañ ko mën a tudd ndax fu nekk la yàlla nekk te jàmm bi fu mu nekk war naa taxaw ak yàlla kon fu nekk rek jàmm war na faa mën a tudd boromam lu dul tur bu am jagle bu la dul may nga mën ko tudd ci yenn barab yi wala ci yenn melokaan yi loolu mooy li wér ndax saydatu aïcha wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana yadkurullah ala kulli ahyaanihi yonent bi daal jamono bu nekk rek la daan tudd yàlla amul barab bu mu dul tuddee yàlla amul jamono bu mu dul tuddee yàlla lii saydatu aïcha wax na ko kon bu ñu waxee ne delloowuloon na yoo tiim na doog a delloo na yoo mu mel ni kon ku nekkul ci njàpp doo mën a delloo na yoo wax ji aïcha wax xamal nañu ne kon fuñ la nuyoo rek fay la ak foo mën a nekk kon nag lii mottali bunt bi xaatimatun ida lam yatayammam wa salla tuma wajada al maa fi l waqti la yuidu bu fekkee ne ida tayammama bu fekkee ne tiim na wa salla mu julli moom jaam bi suma wajada al maa mu am ndox fil waqti te fekk waxtu julli ga waxtu julli ga jàllagul la yuidu du baamtu julli ga lan mooy atteb loolu عن ابن عمر أنه أقبل من جرفه حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد صلاة رواه البخاري ومالك والشافعي حديثا ابن عمر طلقه mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bés doon na ñëw jógee ci barab boo xam ne soree na Madinatu Munawwara lu tolloog ñetti kilomètre wala ñeenti kilomètre mu nekkoon barab boo xam ne moomeelu Ibnu Omar la mu ne bi mu ñëwee ba yegg ca daral ba barab boo xam ne barabu daral la marbat al mirbadu mooy daral ci arab ba mu yegsee ba foofa mu dal di tiim masa xarkanamam masa ñaari loxoom dal di julli takkusaan doog a dugg si nag Madinatu Munawwara te booba jamono fekk na jant baa nga ca kaw soogul te ba mu yegsee baamtuwul julli ga kon tiim na julli takkusaan yegsi na Madinatu Munawwara ndox am na te jàppul baamu julli ga ñu déggee ci ne kon ku tiimoon jàpp bu waxtu wa jeexagule it doo amee ndox doo wax ne kon damay jàpp baamtu julli ga ma julli woon ca tiim baax na loolu xadis la boo xam ne buxaari yi soloo na ko imam malik soloo na ko imaamu shafii yu ba tey soloo na ko an abi saidin qaala xaraja rajulaani fi safarin fa xadarati salaatu wa laysa maahuma maaun فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعادا أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك al ajru maratayn rawahu abu dawud wa nisaa'i wallahu a'lam hadisa ngi ñu jëlee ko ci abi saidin mu ne ñaari waay génnoon nañu jëm ci tukki julli jot ñoom ñaar amuñu ndox ñu dal di tiim kenn ca amul ndox ñu tiim ci barab boo xam ne bu laab la saidan tayiban ci lañ tiimee ñu dal di julli gannaaw buñ jullee ba pare ñu dal di am ndox nag te fekk waxtu julli wa jeexagul kenn ci ñoom baamu jullim gannaaw bu mu jàppee mu baamu julli ga keneen ci moom baamtuwul julli ga biñ ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dal di nettali la ñu def yonent wax ki nga xam ne baamuwul ne ko asabta sunnata li nga def moo dëppoo shariatu li nga def asab te jot nga dëppoo nga ak sharia ah sunna te li nga xam ne mooy yoon li nga def moo dëppoo ak yoon waaye wa aj zaatka salaatuka te julli ga nga defoon ci tiim ga doy na la jarul baam mu wax nag ka nga xam ne jàpp na baamu julli ga ne ko lakkal ajuru maratay ni yow am nga ñaari yoon am nga julli ga nga julli woon ca tiim amaat nga it yoola julli ga nga julli ci njàpp kon ku ca nekk jox na ko dëgg waaye wax jam wax ca la ñuy atte wala yu sariya asabta sunnata li nga def moo dëppoo sunna kon ka baamtuwul lam def moo dëppoo sunna kële xiir nag baamtuwaat baamtu yàqul bam tiim baax na ndax asabta maratay ni jot nga ñaar yoon lakkal ajur maratay ni bi mu wax moo koy moo ñuy xamal ne tiim ba baaxoon na bu ko doyloo woon baax na jàppaat na julliwaat na julli ñaareel ga it nañ jàpp ne kon naafale la ci moom rek wala bu njëkk ba la yéene muy naafale bii di farata waaye lay sariatu kon mooy bul baamtu boo baamtoo daal benn ba yéene li naafale rek lay doon mu xaw a nekk wàcc waaye julli woon nga yow kenn gis nga mbooloo di julli nga bëgg a jot ngëneelu mbooloo ndax jullik mbooloo gënee na lu ëpp julli kenn ñaata yoon ñaar fukk ak juróom ñaar ci riwaaye beneen riwaaye wax ñaar fukk ak juróom lu ci mën a xew ñaar fukk ak juróom ba ñaar fukk ak juróom ñaar benn jullik mbooloo gënee na ko julli kenn nga julli woon yow kenn gis mbooloo di julli nga bëgg ngëneel yooya nga ne naa julliwaat ci mbooloo mi ndax muy farata ci man julli bu njëkk ga ma def ko muy naafale baax na ku def lu mel noonu kay am na ñaari yoon ñaari yoola nga ko kon atteem njàpp bu waaja baamtu jullim mën nañ ko déggaat baamtu bu waaj yi jullim ngir am ngëneelu mbooloo waaye la sharia wax daal jarul baamu rawaahu abu daawuda wa nisaiyu ñoom soloo nañ ko wallahu yàlla rek nag alamu mooy ci gën a xam wala alam moom rek a xam alamu af ala tafdil lay tekki ci arab waaye yàlla dafa gënantewul ak kenn ci lenn dafa mënantewul ak kenn ci lenn moo tax du ñu wax alamu moo gën a xam mu mel ni am na keneen kuy nekk ci wetam ku muy gën a xam lante wala gën a mënal mooy wallahu yàlla alam moom rek kay aji xam kon sahaaba yi dañuy màndu ci seen waxin moo tax bi ñu waxee wute ya am ba pare it dañu waxaat nag ne lii mooy lii lii mooy lee waaye nag wallaahu yàlla alam mooy rek xam kon yàlla mi xam yàlla ñu xamal xiir ñu ñuy jëfee lam bëgg lam gërëm ci daraja yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag lii mooy li doon moo bunt bi doon wax ci wàllu laab ngeen xam ne tiim jaf naa xam lool atte ya ca aju ndax du ndox jamono bu nekk lay am te it du jamono bu nekk la nit ki am wér mën a jàpp bu boobaa la war mooy tiimal xataa cangaayal farata tax ku ko amul julli jot na amoo ndox moo sangoo bul wax ne sanguwuma maa ngeeg janaaba tiimal mën na laa jullil sa julli ndax mooy laab gu ndaw wala mooy laab gu mag ca ka am ngànt wala ka amul ndox kon xam leen sàrt yi xam daal lu mën a doon moo gën a réere yàlla ñu yàlla xamal yàlla barkeel suñu xam ñoo ngi daje woo di jàng ngir bëgg a xam yàlla rek a xam yàlla rek a mën a xamle moo xamal ku mu ta xam jàng taxul a xam waaye gis nañu ci njàngit danañ ciy xamee nag kon ñoo ngi sabab lu di jàng yàlla mi nga xam ne moom rek kay xamle yàlla ñu xamal te yàlla na barkeel suñu xam-xam yàlla na dooleel suñu cër may ñu mën a yëngatu jëm ca li gërëm loo yàlla ca wax la mbaa jëf la yàlla laabal suñu baatin ca laab ga nga xam ne su ko xas ba am sobey zahir yi dootu la tilimal laab googa yonent wax ne jullit du sobewu wala laab googa yonent wax ne ndox sax du sobewu yooya ay wax la yu xóot ci maanaa waaye ngëneelu laab yu mag yooya tax jullit dootul sobewu yàlla yàlla may yooya laab ci sunu zahir ci sunu baatin yàlla moom moo yore mbaaxam jullit ñi danañuy xiir bëgg a jëfee xeetu jaamu yi ci cër yi waaye xol bu laab la yàlla soxla ci jaam yi xol bu laab it nag la koy tegtale mooy borom di jëfee ci cëram jëf ju dëppoo la yonent doon jëfee kon it kenn du tàgganee jëf yi doyloo xol yi waaye bu kenn jël jëf yi itam sàgganee xol yi xol yéen a jiitu yàllaa ko mën a laabal yàlla yàlla laabal suñuy xol jubal suñuy cër xiinu ci lim bëgg ak lim gërëm te lu ñu wax lu ñu jëf yàlla na ko yàlla gërëm te fuulal ñu ko muy yiw ci daraja yonent yàlla muhammad hurmati mawlana cheikh ahmada tidiane mi nga xam ne ci barkeem lu rëy la lu ci waaye ñaan yàlla may la ko yàlla ñu yàlla may googu laab yàlla ñu yàlla may googu njub yàlla ñu yàlla may